donc ñu ngi Kantène Kantène di la forêt de Kantène nekk ci Ziguinchor fii nag eh, lu fi gën a fës comme ni ngeen ko gisee di ay garabu darkase mais ce qui attire notre attention mooy da ngay gis darkase yi nu muy eh, tasaaroo ci suuf di yàqu ci suuf si lii di wane ne rek eh, Casamance am na benn potentialité bu incroyable bi nga xam ne ni buñ ko exploité mën na jëmale région bi fu sore sori oui il y a des femmes des hommes ñi nga xam ne ni dañuy exploiter darkase bi di ci tirer jus bi et tout di euh, travail ci ndaamaraas bi et tout mais ba tey euh, fruit bi day des ci àll bi di yàqu et vous pouvez le constater Ah. Euh, forêt bi ñu nekk fan la. Kanteen. Kanteen mooy forêt Kanteen quoi. Ah. léegi fii darkase bi surtout moo fi ëpp ñu koy exploité. waaw ah. yéen liggéey bi nu muy demee fii. fii moom bu ñu foree këj yi ba pare fii lañ koy ñëw teg. Mhm. ñu tourné ko ñu jël yu nooy def si bidon yi yu dëgër yi ñu tuur ko feenee mhm. bu ñu paree ñu jël yu nooy dëbb ko feenee moom la ñuy def si bidon yi ba mu fermenté mu doon sëng. Euh, liquide bi maanaam jus bi. Ah. ngeen di nal boo leen ko bësee ba mu nooy. ba mu tuuru. Mhm. ngeen def ko ci bouteille mais fermentation bi ñaata jour lay jël exactement ñaata fan ngeen koy teg fii pour mu doon sëñ. non non ça dépend si nit ku koy defar mën na ko fi bàyyi ay mois. Mhm. wala at yooyu. Mhm. te lu mu gën a yàgg vin bi di gën a neex. waaw loolu la tubaab di wax la vingt se bonifie avec le temps. Ah. maanaam lu mu gën a yàgg rek njëg bi di gën a yokk muy gën a neex muy gën a am njëriñ. ci koy jëfandikoo. léegi pour exploitation bi lee lan la moom. foofu la ñuy dëbbee kaju yi. mooy leene waaw moom la ñuy dëbbee kaju bi quoi. Ah. ko dëbbee après mu commencé jus bi commencé génn et tout. Mhm. mais liggéey bi aussi liggéey bi mbar am na yéen a ngi ciy gis seen bopp mbar am na xaalis. non non amul xaalis. waaw ah, bi baaxul kilo kuku bi déjà deux cent cinquante lañ ko def. kuku bi mooy. xoox bi ndaamaraas waaw mhm. kilo mhm. deux cent cinquante waaw ok léegi jus bi bi moom des fois ñu def kii litre cent franc wala deux cent litre cent franc wala deux cent waaw ah. ah, métti na de mais dañuy gis ne fii en tout cas ñun ñu jóge Dakar mhm. bu ñu gisee lu mel nii darkase bi di yàqu ci àll bi dañuy bett quoi dañ naan lii moom yàq la itu mais loolu tamit euh, euh, jaaxalu leen yéen yéen ñi fi dëkk amul benn problème. lu mu yàqoo ci àll bi ñun moom gis ñu fi daal. Mhm. mën mën nañ koo gën a exploiter maanaam defar fi ay yëf ci dëkk bi. waaw ba nga xam ne nii tamit ay usine peut yi nga xam ne dinañ ko mën a exploiter. yéen ñi ah. nekk ci ndaw yéen nekk yi ngeen nekk ndaw di ci liggéey et di fayeeku et tout pourquoi pas. waaw potentialité yooyu. Uh-huh. fii moom këj yi moom nag yi ñoo koy lekk. mag desit bee mooy leene ñu jàll ci mooy yu ñuul yeeg. Ah. man déggoon naa nag neex na trop pour nit ñi di ko lekk tamit. waaw nit ñi dañ koy lekk. Ah. Mhm. koy gu mujj gi le dernier mot. <laughs> man moom sama kàddu bu mujj bi mooy gars yi jàppale ñi ñii si transformation këju yi parce que këju yu bëri ñi ngi nii fii di yàqu kenn utiliser wu ko te liggéey mii nii dafa ñàkk dafa manqué si dëkk bi. Mhm. état mu jàppale wu ñi ñi ñi jël këju yi utiliser ko liggéey am fi ma xool am dëñ kumpa xool rek. Ah. même bu dee bu dee naanu ma <laughs> ma xool. ñëwal nii. donc euh, mu noonu muy kaju lii mooy kaju ah moom ngeen di dëgg ñu naan kaju moom la ñuy eh, jógee moom mooy jógee ci ci darkase bi. moom mooy jóge ci derkase bi ñu fermenté ko ba mu doon vin donc moo nekk ni mooy eh, ku xam Casamance xam kaju ah donc maanaam ndox mi buñ ko bu dee tey lañ ko nal ba mu génn ju normal lay doon mais bu fi yàggee eh, vin lay doon maanaam sàngara nga xam ne ni nee na ma litre bi cent franc la n'est-ce pas cent franc donc litre le litre à cent franc muy kaju voilà mën nañ ne c'est patrimoine de la Casamance voilà waaw bi fermentéegul bu baax bi bi dëgëragul ay bu baax jaajëf Jara yow xale nga de daa mel ni yow ñaata at nga am. 17 ans 17 ans amagoo sax 18 nekk ci exploitation bi yaa ngi jàng en même temps ou bien. waaw maa ngi ok mais léegi yaa ngi ci kii bi di jàng en même temps ok se bien merci beaucoup.

Yvette. Yvette. waaw. Euh, li ñu la fekk ngay def nii lu muy tudd. darkase. moom ngay liggéey. waaw. Hmm. liggéey bi nu mu demee daa mel ni métti na de. ah, ah naal bi kay métti na de da ngay naal yenn saa mi dugg si sa biir bët bii mu saf ba te loxo yëpp métti bu doon bu fanaan la ne sa baaraam yëpp mooy yàqu waaw liggéey bi kay bi kay métti na trop sëgg di sëgg sëgg di sëgg si ndigg bi yëpp. mais ah waaw. gis seen bopp rek. toog rek moo tax ñu dugg si liggéey bi nii. am na xaalis. Ah, bi moom amul dara dara dara dara prix bi normalul dara. prix bi ah, trois cent cinquante foofu la yem balaa ñuy mi yem commencé trois cent cinquante ñu koy wàccee rek deux cent cinquante tamit. ba dem ci deux cent. xoox bi mooy trois cent cinquante waaw mooy ndaamaras. waaw ok mooy kilo bi trois cent cinquante. waaw kilo bi trois cent cinquante. mais ñan ñoo koy jënd exactement. ah dégg naa ñu ne kii génnuñu de naka la sax gars yi fee ne dañuy tëj waa indien yi ñu ne génnuñu léegi gars yi ñoo nekk di jënd di teg ñu ne bene bu daaw bi demul moo tax prix bi mënul baax. ñu wàccee prix bi. ñu mhm, wàccee prix daaw mi ngi foofu noonu. kon métti na ci yéen kanam. billaay métti na trop. bari yéen a ngi gis ndimbalu état beeg seen autorité réew mi yéen ngeen jàppale jëmale ci ci yéen jóge ci état bi wala seen maire yeeg yooyu. ci maire ndax lan. pour liggéey bi lu mu méttee est-ce que di ngeen ci am jàppale bu baax. dañuy góorgóorlu rek dañuy góorgóorlu daal. te aussi lii xam naa liggéey la boo xam ne nii bu darkase amee la mais bu darkase amul doo darkase su demee mu jee comme ni mu demee ba mu wàññeeku ni ba nawet ñu duggaat soo amee fu ngay béy nga jàpp ci béy bu doon tamit amoo fu ngay béy nga continuer si darkase bi. Hmm. luñ la fekk ngay def nii lan la exactement. parce que gis naa ngay bës affaire yi ndox mi di génn. Mm, ndox bi laa bëgg a. léegi lii ñappe bi pour kii la mbaam. ok am na ay weer ne. lii mooy pour mbaam bi mm, bi waaw. mooy pour mbaam mm. léegi ndox mi. ndox bi moom moom la ñuy def kii nii kaju. di jaay kaju mooy sëng bi. sëng bi waaw. sëng bi léegi ñaata fan lañ koy fermenté pour mu doon sëng. ah mën na dem ba cinq jours mu dëgër. te boobu tamit boo ko jaayee dañ ci am dara. ah yoo foofu kay dañuy am foofu dara litre bi deux cent cinquante ba cent cinquante solo kon daal mën nañu jàpp ne nii nga yore sa njaboot quoi. Ah,

Hello. gan sa bopp ni